Touba ca kanam nag bala may egg ci koppar yi dañuy gis ne Touba ca kanam dafa nekk loo xam ne xëyul xëy rek nit cëpp jóge ci asamaan si wàcc xalaatu ko taxawal xalaat kan moo ko xalaat benn mbokk ñu koy wax alaaji lu Njaay alaaji Fàllilu Njaay bi muy xalaat Touba ca kanam ndax daf ko xalaatoon ngir lii déedéet daf ko xalaatoon ngir émission ci benn média boo xam ne dafa nekk ci internet bi ñu koy wooyee Touba Info waaye mu xalaat ko ngir lan ngir di xool ne Touba dafa am ay jafe-jafe mu koy filmer di ko fa dugal ñu cay waxtaan. parce que sama introduction li tax ma doon ñëw ci loolu loolu laa doon expliquer que ne lu taxaw ab commission ko taxawal bu dee ne dañoo tabax commission Mame Thierno Ndiaye réalisation moo tabax mais balaa ñuy tabax sëñ laa doo ñoom ñoo jàngat. tuwaab léegi bu fekkee ne yooyu am na kon war naa am loo xam ne fa la ñuy jaar ñu daal ne nañ fexe ba mbokku taalibe yi ñu dajale ñaari million ngi nit bu ñu amee ñaari million ngi nit kenn ku nekk joxe mille francs muy na par mois dañ am vingt 24 milliards sang bu tedd bii di mu Mountakha léegi rek la ko sëñ Mbaye Tène wax daal di ciy joxe ci année bu njëkk bi 120 000 francs 120 000 mooy lan mooy 12 000 fois 10 benn bi moom la neuf yi ci des ay juróom-ñeenti mbokki taalibe yu amut mu joxeel leen deuxième année mu def la même chose ñu dem ba ci troisième année bi mu ne non du joxe loolu un million deux cent laa joxe dix fois dix la mu defoon léegi un million deux cent yooyu muy joxe ñun donga yi ñaar téeméer képp lañ ñu laaj ñaar téeméer ñaar téeméer mooy lan ñaar téeméer mooy juróom-ñaari dërëm par bés juróom-ñaari dërëm ñii fi taxaw ñëpp koo ci làmb poosam ab android a ngi ci poosam baa ab iphone koo ci ramb poosam ab android a ngi ci poosam wala ab iphone bu génnee léegi dana xëcc whatsapp wax ci baa mu youtube baa mu instagram baa mu baa mu baa mu baa mu pourtant loolu muy def ëpp na juróom-ñaari dërëm sëñ Touba laaj ko juróom-ñaari dërëm par bis ngir lan ngir ñu defar ci Touba ñu daal di ne léegi li ñuy def mooy nañ fexe ba kenn ku ne nga ah, nga joxe juróom-ñaari dërëm par bis pendant un mois muy mille cinquante francs 35 francs par jour pendant 30 jours on a 1050 francs ñu ne la jëlal ñaar téeméer yi nga jox ko Touba ci kanam fukki dërëm yi bu la neexee nga def ko ci weer wala bu la neexee nga dem jënd ci ko connexion lu yomb la léegi nag loolu bu ñu ko dajalee ba am ko ba dajale ko li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw dem ci banque yi ñu dugal ko fa banque yi yàlla yàlla dimbale nañu ba gis nañ ne Sénégal fépp ami banque xëy na banque yi bokkuñu du ma tudd naan ay bisik duma tudd naan ay CBAO du ma tudd parce que yooyu yëpp boo ko tuddee dafay mel ne da ngay banque yooyu waaye banque yooyu yëpp fenn fu ne am na fa ndax léegi banques yi dañoo nekk ay banque de proximité ñu itam ñu ne kon nañ fekki mbokki taalibe yombalal leen ko ubbi ci banque yooyu yëpp compte ubbi wuñ fa compte parce que dañuy lebal ndax ñun duñu ñu leb non for profit lañ li ñuy wax non lucratif kon ñun mënuñ ñoo leb kon buñ ko fay dugal rek dañ ko fay dugal pour denc fa xaalis ba bu buñ ko fa dencee nag mbokk mi nga xam ne dafa jege banque bi dafay mën a jël xaalisam def ko fa ñu daal ne mais du ñëpp jot banque yi ñu ne Orange Money ngi fi 144 dièse 144 621 boobu da dugal yow doo fay dara wala ñu ne la demal ci 78 533 44 44 boo fa dugalee aussi mu dem nga ne non loolu yëpp dafa sori ñu ne la demal ci yi bu la neex wool Moustapha Dieng nga ne ko damaa bëgg a dugal le l'adjoint trésorier mu jox la kon fu ñuy dugale xaalis yomb na boobu fekkee ne da toog ba càgg nga woo sëñ Mandiaye Ngom foo mën a nekk dana la wax ne la boo demee ci diw ci Ndakaaru dina la jox xaalis bi mais ñu daal di ne non loolu yëpp dafa sori nañ jël El Hadj Ndaw ñu yóbbu ko fii ci Faidherbe ah ak euh, Fleurus bu ñu demee ñu ubbil ko foofu place boo xam ne El Hadj bu Bousso moo ko jox Touba ca kanam moom mu nekk fa nekk le coordonnateur général de de de Dakar. moom muy administrateur bi képp koo xam ne da bëgg a bokk tubaa ci kanam boo fa demee ñu jox la bloc bu ñu la joxee bloc identifié la ngay co ngay jël cotisation yi di ko indi kon nu ñuy def ba xaalis dugg dootul problème léegi nu ñuy def ba xaalis génn la ñuy wax. nee woon naa leen commission bu ne lu xew ab commission ko fi def sëñ maam Thierno Ndiaye toog nañ ba ci yàgg ñu daal di ne ah waa commission culturelle nee nañ dañuy defar ay daara lan lañ fay def ay toilettes étude étudier leen ñu toilettes yi nga xam ne moom lañuy def ci daara yi waaye étude bu ñu demee dañuy ànd ak architecte yi ñu àndal defar plan yi def li ñu war a def lépp bu ñu dikkee andi ko suñ ko indee léegi dañ koy daal ñëw yóbbu ko nag pour ñu xool ñaata moo ciy dem ci xaalis bu ñu dikkee dañu am benn commission boo xam ne sëñ Alpha Amadou Thiam moo ko jiite mooy achat ñoom ñooy daal di ñëw seeti li nga xam ne moo war a dem ci xaalis ci affaire yooyu ñu xool ko xool xool xool ba mu gis. ñu daal di seet nag ñan lañu war a jox liggéey bi ñan la ñu war a jox liggéey bi mooy ñan mooy ñoom maam na ñuy daal dem wuti ay entrepreneur du ñu wut benn du ñu wut ñaar du ñu wut ñett waaye ay la ñuy wut bu ñu dikkee ba nga xam ne kenn ku nekk indi nga say pli ñu tase en commission bu ñu tasee commission ñu génn pli yi xool et eh, le moins dix ans et eh, la meilleure qualité lu jafe moins dix ans et meilleure qualité waaye muriti sëñ bamba yi dañoo bëgg sëñ bamba moo tax moins dix ans et qualité di am léegi nag bu ñu xoolee mooy dix ans et meilleure qualité ba noppi ba nga xam ne noppi nañ ci dañ koy indiwaat commission des finances ñu ne kii lañ tànn buñ ko waxee ne kii lañ tànn duñ ko demee noonu rek de léegi la commission dañuy voté ndax d'accord nañ ci tànnin wi loolu mooy bala muy def lenn dañ koy yóbbu commission ba mu nekk ndax manu na manu na mooy lan mooy ndax budget bi mi ngi fi waru na mooy ndax lii lu ñu war a def la ñaar yëpp la ñuy étudier commission des finance waru na manu na bu ñu paree bu dem achat bu jógee achat soo ko ñëwaat commission des finances ñu adopté bu ñu adopté ba noppi nag foofu aussi beneen problème dafa am mooy dañuy daal di jël kayit bi jox ko l' administrateur Serigne Khadim Diouf ak le secrétaire permanent ñu bind bon de décaissement bi bu ñu bindee bon de bi ci man lay ñëw bu ñëwee ci man su yegsee du ma signé li may wax mooy indil leen ma kayit yi nga xam ne ñoo àndoon ak bon bi ci commencement ba ca fin ba ma topp ko. li ñuy wax nomenclature par nomenclature lii lan la lu tax lu tax jàllut lii war naa jàll wërta jàll ba mu noppi ma soog a émarger wane ne lii topp naa ko ba mu egg soog a dem ci bon de décaissement bi def fa ok daal di def samay initial ba pare soog a signé door cachet suñu paree administrateur bi soog ma cay fekk ñu noppi ñu indi ko ci maam Thierno Ndiaye bu fekkee ne moom mooy réaliser c'est-à-dire chaque mois dañu am benn benn sous-commission ci commission des finances ñu tudde ko gestion des fonds lépp luy xaalis fa lay dugg lépp luy xaalis moo xam day dugg moo xam day génn foofu la kayit yiy jaar fa la la comptabilité nekk parce que dañu li ma leen wax rek Touba ci kanam dafa structuré fa la comptable yi nekk aussi ñoom ci seen wàllu bopp bu ñu toogee ba nga xam ne weer wi dee na li ñuy njëkk a def mooy dañuy xool ñaata moo dugg tàmbalee ko ci Touba Ndakaaru après ñu dem nag ci zone Afrique zone États-Unis États-Unis bu ñu ko waxee Amérique et les Amériques latines la bokk ci lañ bokk mooy Amérique gi ak Canada ak ruq boobu bu ñu jógee foofu ñu dem ci zone Asie bu ñu jógee foofu ñu dem ci zone bi nga xam ne mooy zone Europe léegi nag zone bu nekk li mu versé dinañ ko dugal wax ne diw versé na nangam mooy ka nga xam ne moo fa nekk coordonnateur bu ñu paree ñu totaliser li ñu am ci versement yépp dinañ jël aussi li nga xam ne ay versement anonyme lañu am na ay mbokk taalibe yoo xam ne ñu ngi jël seen xaalis di jaar ci banque bi di ko verser te seen tur du ca feeñ am na ay mbokk taalibe yoo xam ne ñu ngi jaar siège di verser te seen tur bëgguñu mu feeñ dañuy wax rek bindal àddiya yooyu yëpp nag dañ koy tuddee anonyme bu ñu demee nag ñu boole anonyme yi yooyu ma waxoon yëpp li jaar ci Orange Money bi ak loolu lépp ñu ne lii moo fi dugg ci weer wii bu ñu paree Lansar bañ koy tabax ci weer wii def nañ ci nangam bi ñuy tabax kër gol def nañu fi nangam bi ñuy def lii def nañ fi nangam lu mel ne weer wii nga xam ne moom la ñu war a wax ci mois d'août bi incha allah man sax maa ngi ko bëggoon wax sëñ Fallou Ndiaye su fekkee ne dina ko man ñu def ko direct fii incha allah bu ñëwee nga xam ne au ñu koy filmer ji wala faneen ñu toog fii man indaale naa document yi comme ça ñu def li nga xam ne mooy mois d'août bi fii ci Massalik fii ci obélisque nit ñëpp àdduna bépp gis ko xam ne mois d'août bi lii lañ dépensé parce que septembre a ngi bëgg a dee. léegi nag loolu bu ñu ko defee ba pare li ñu dépensé li yëpp aussi dañ koy génne bu ñu génnee ba pare ñu daal di ne nun kat am nan ci weer wi nangam biñ amee ci weer wi nangam dépassé nañ nangam su fekkee ne xaalis bi dafa des loo xam ne balance bu positive la ñu ne lii moo ci des ca xaalis ba ñu amoon ci weer wa. bu fekkee ne balance bi dafa des balance bu négative ñu ne lii mooy li nga xam ne moo ëpp ci liñ dépensé ñu daal di koy nag boole nag ci weer yi nga xam ne moo ëpp jàll par exemple bu dee mois d'août bi ñu daal di ne juillet amoon nan ñàngam léegi weeru août bi lee fi des ci lu positif wala lu négatif lii moo fi des loolu noonu lay noonu noo noonu lay demee ci kaw loolu buñ ko seetloo fi ñu toll Touba ca kanam bi muy départ ni ma leen ko waxee zéro franc la départ zéro 453 millions ci banque bi loolu nag day wane ni ñoo ngi liggéey 453 millions ba pare réaliser lan réaliser euh, poste de santé réaliser lan fan yi ku xool euh, YouTube bi wala leen da ngeen gis ne wal mi nekk Touba ndox mi ñu ngi koy naan bu baax a baax a baax a baax suñuy machine lañu jënd ay moto pompe jënd ay pompe électro ay électropompe di naan ndox mi réaliser lan réaliser daara yi nga xam ne moom la sëñ Sonia bu Ridwaan doon wax daaw te fas yéene koo def ren mu gën a bari réaliser lan réaliser li nga xam ne moom mooy euh, euh, toilette yi nekk ci penku jumaa ji dégg nga li ñu réaliser yëpp li mu ko réaliser desal loolu ba pare départ zéro franc Touba ca kanam mooy Touba ca kanam